الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم mbokk yi nu ngi sant sunu boroom nu ngi koy bàkk di ko kañ di julli di sëlmal ci ab yonenteem sallallahu alayhi wa sallam di ñaan sunu borom mu dotti waamem xéwal ci kaw yonent boog ay saxaabaam ridwanullahi alayhim ajmain sunu borom de mi ngi wax ak ñun ci téeréem bu tedd bi ca tàmbali suratu fatir sunu borom ni yaa ayuha nnaasu eeyeen nit ñi inna waadallahi xaq xam leen ni digab yàlla bi dëgg la moo diggee àjjana dëgg la dina am moo diggee sawara dëgg la dina am lépp lum la wax rek mu nekkub dig kooku ab digam du fomm lam wax lu am la kon nag fala taxurannakum alxayaatu dunya wala yaxurannakum billahi alxurur bu leen seytaane wor bu leen àddina féttéerluloo ba ngeen fine ci santaane sunu boroom waaye yooyu kat bu leen waree dangeen di yàqule mu teg ci ni inna shaytaana shaytaane nag lakum aduw seen noon la te jàpp naa ni ku dëggu ba mel ni sunu boroom ci ay kàddu nga xam ne moo gën a dëggu ñëpp ay kàddu ndax moo nu bind su la waxee ni diw sàngam sat noon la loola waroo ca amati benn sikk sàkk seytaane seen noon la kon nag jàppee leen ko noon moom day teel naa wax fa mu jëm nit ñi mooy daf leen di fexeel pour ngeen tàbbi sawara mbokk yi seytaane ñaari discours képp la def yoo xam ne diskuur ba ca nekk bu ca nekk leeral na lam ca nar borom bi subhanahu wa dani seytaane kat discours bu njëkk bi mooy leeral nit ñi ni man kat dinaa toog ci yoon yi nga xam ni ci lañuy jaar pour gindeeku dikkee leen ndeyjoor dikkee leen càmmoñ dikkee leen ci kanam dikkee leen ci ginnaaw ba fénati la ñoom ñëpp yoonu njub wi su ko defee ñoom ñëpp danañ alku loola moom seytaane teel na koo wax kon fa mu jëm ñun wax nañu ko mooy sawara bu nu àggee àllaaxira mu def ñaareelu discours bi mooy wa qaala seytaanu lamma qudiya al amru ñaareelu discours mooy bu nit ñi yegsee fa suñ borom mu ne ah suñ borom kat moom lu mu wax mu def ko lam leen digoon lépp a ngi nii man nag li ma leen doon wax dama leen doon nax rek sunu borom mu ni in allaha waadakum waada alxaqi wa waadtukum fa axlaftukum man dama leen digoon waaye dama leen doon nax li ma leen doon wax dara amu ci jàpp naa ni noon bu màggee nii ku la wax ni fii la jëm ak yow jat na te jaadu nga jëlaat say matukaay jéem koo xam bu baax jéem a xam ay pexeem seytaane bari na moos lu muy rot ci làmmuñu nit ñi daanaka xaw tuuti ko nit du xëy suba ba ngoon te tëdd ko amul benn xeetu njaaxum nag buy am ci àddina duma wax dugal na ca loxoom lu dul mooma amul benn xeeti njaaxum boo xam ne ak mooy yàlla la lu ak fu mën a amee moom seytaane bokk na ca te mooy fexe ba nikki def njaaxum googa moom nag dafa yàqule ba noppi ndax suñu borom dàq na ko ci yërmandeem déclaré ni ko saware la jëm ba noppi mënatu la tuub xam ngeen dafa am yoo xam ne bu tu bu ñu tuuboon rek ab daawa day daal di yàqu ndax keroog bi suñu borom ne tabbat yadaa abi lahabin wa tab abu lahab di dund ay mbokki abu lahab dajeeg ñoom moom ni ko yow day boo génnoon ci penc mi léegi rek nga weddi laataak Uzza wane ni gëm nga yàlla gëm yonenteem bi rek daawa Muhammad yàqu te abu lahab ba tey mënta génn wax loolu lami muy wane mooy kon sunu borom classé nañ ci ñi alku ba noppi ndax xam ngeen ni Abu Lahab bu génnoon ni gëm naa yonent bi bàyyi laata ak Uzza rek alxuraan day daal di folleeku kon yàlla mi ko xës ba wax ba noppi xam na ne xolam kaste nañ ko dootul gindeekooti Iblis it dàq gi ñu ko dàq ci yërmande suñu borom tax na moom it dootul gindeekooti ba faaw comme moom lakkale na li wolof yi wax ni ku lakkale morom lay bëgg comme moom lakk na ba noppi ah walis mu au lieu que muy dem sawara moom dong di fa alku faw mu ànd ak mbooloo mu bare bare bari moo tax it bu yuuxu am ko ko yuuxulee sunu borom nan laa tad'u al yawma suburan wahidan wad'u suburan kasira ci suratul furqan iblis moomu dinañ koy wax iblis di ko wax aljaan di ko wax shaytaan di ko wax allain yi yëpp rot na ci alquran rot na ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam iblis cosaanam jinne la waaye duut malaaka comme ni ko ñenn ñi foogee li sunu borom wax ci suratul kahfi leer na mu ni illa iblisa kaana min al jinni fa fasaqa an amri rabbi iblis ci jinne la bokkoon waaye dafa defuk caay-caay ba mooy ndigalal boromam sunu borom teg ko alkande jim ko teg moo tax xasanul basri ni seytaane day iblis musta nekk malaaka benn bis da di ku baaxoon la darajaam yëkkati ko bañ boole ko ca mbooloom malaaka muy dem ak dikk nga xam ne ku ko fekk da ngay foog ni ca malaaka la bokk fekk déedéet loolu li may li nag jiitu na ñëwug aadama ci kaw suuf waaye jiitu na juddug nit nga xam ngeen ne iblis moom la suñu borom njëkk sàkk ci nit iblis nekk na fi diir bu yàgg yàgg yàgg yàgg boo xam ni yàlla rek xam na mu toll te booba aadama ñëwagul ci kaw suuf kon ak njabootam taxul di wax teqet la yu ndaw nag yoo xam ni mat naa ràññee saa buñ nee saytaane bokk ak buñ nee jinne jinne baatab jinne buñ ko waxee mooy jinne jinne mooy jinne mu jeex jinne nag mën naa nekk jinne ju gëm yàlla te su boobaa dootul tuddati seytaane iblis mooy seen maam nag ñoom ñépp ni bàyyi aadama nekkee baayu njaboot gi mbindee fi yépp noonu la iblis nekkee baayu jinne yépp ni aadama juree ay nit yu saay-saay te bon nar a tàbbi sawara juree ko ñu baax te nar a tàbbi àjjana noonu la iblis juree ay nit yu baax di dem ajana juree ay nit yu bon di dem sawara ndax wér na ni wa ama alqaasituuna fa kaanu li jahannama xataba wa kadalika al aks jinne yi ña ca ba bonoon bu ñu dee dañuy nekk mattam sawara kon dañuy tàbbi sawara bu ñu dee dañuy tàbbi ajana loolu mooy li gën a dëgër ci waxu borom xam-xam bu jaamoo suñu borom ndax yàlla dane wa ma xalaqtu l jinna wal insa illa li yaabuduun jinneeg nit suñu borom sàkku leen lu dul ñu jaamu ko su ko defee ba jinne la iblis jinn la iblis moom bi mu juree ak njaboot njaboot gi am na ci ñoo xam ne déggaluñ ko danoom mooy ay ndigalam nekk ay jinne yu baax moo tax ñu ne wa anna minna saalihun jinne yi ni ñun de am nañ jinne yu baax wa minna duna dalik am nañ jinne yu bonit ñu àggut foofa fa man aslama fa ulaayika taharraw rachada maanaam jinne joo xam ne tuub na dugg ci lislaam rek day daal di yu jaar yoon njub xam ngeen ne yonent bi sasam ci ay yoon yu bari wax na saxaaba yi ni leen kaay leen ñu dem war leen jinne nangam ñëwoon nañ fekk ma ca euh, barab sangam wax ak moom ay wax baagal mu ni kaay leen ñu ànd ñu mu ñu leen gis ngeen tàkk-tàkk sawara yi seen tàkk-tàkk yi la mooy guddi ga nga xam ni sahaaba yi dañoo toog yàgg gisuñu yonente bi saa sallam fekk mi ngi doon naafile jinne ñëw di ko déglu mooy wa is sarafna ilayka nafaran min al jinni yastami'una al quran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallahu ila qawmihim mundirin kon seytaane mooy iblis mooy seytaane moom la ñuy wax aljaan mooy wal jaan na xalaqnaahu min qablu min naari samuum mooy allaayin mooy ki nga xam dañ ko rëbb iblis moomu jaamukatu yàlla bu mag la woon ci li borom xam-xam yi wax balaa muy nekk nii mu mel suñu borom di ko déclaré dàq ci yërmandeem jaamukatu yàlla bu mag la woon waaye bis dafa ñëw rek jaamu yàlla yàllaam googa yàqu loolu war naa tiital képp ku jaar ci yoon wi ndax al ibratu laysat bil bad'i lakinnama bil xitaam ndeke mbir yi nekkul ci tàmbali waaye mbir yaa nga ca mujjantali ya ndax nit mën naa tàmbali lu bon te di ko mujje nit mën naa tàmbali lu baax te di ko mujje te loola lu tiit lu la ndax boo jàngee histoire dañ lay nettali ñoo xam ne bu dee dëgër ñoo la gën a dëgër bu dee mbaax ñoo la gën a baax bu dee góor góor doon nga ñaan sax mel ni ñoom ñu xëy xëy rek tarxiis jàdd yoon nga gis koo xam ne dafa saay-saay ba nit ñi di moolu ci moom mu xëy xëy rek tegewaat ca yoon wa wallahu yahdi man yashaa ila siratin mustaqim seytaane nag waxtaanee ko lu am solo la mbokk yi ndax bu nu yàqoo moo nu yàqal mboolem njaaxum yu am ci àddina bi lekkum alal bi lekkum riba bi tuurantey bakkan yi njaalo yi rey bakkan yi ak xeeti njaaxum yi nga xam ne day am ci àddina yépp mën a tàbbal nit sawara yëg leen ni iblis ma nga ca gannaaw ndax moom xëyut gontut góor yettut joxewut dépasse demut fenn amut lenn luy liggéeyam lu dul nekk fi rek di yàq xoolal koo xam ne loolu mooy liggéeyam ñaareel mooy sa maam fi la ko fekk sa maamaati maam fi la ko fekk sa maamaati maam fi la ko fekk ñoom ñëpp seeni pexe fi lañ ko fekkoon kooku jàpp na ne ku am ay pexe la ku xam ni muy def li muy def la ci caay-caay ndax ngembam loolu ba mu ko takkee ba nup ba ba tey jii tekkeegu ko te fas yéene wu koo tekki lu dul daa am mbaboor gu bare bare gu bokkal dugg biir sawara loolu kon war na tax nga xam ne ku bari ay pexe la ku bari ay technique la ku xam nu ñuy defee caay-caay la tey caay-caayam googu yëpp ci yow la ko jëmale waaye loolu nag bu mu tax nga tiit ndax koo xam ni moo la mag moo la moo la moo la gën a xam gën la fay yàgg gën laa gudd fan nga judd fekk ko fi ak say maam fas yéenee dee bàyyi ko fi ak say sët te teewut moom am nga ay jumtukaay yoo xam ni maanaam mënut lu dul taxaw fële di la xuuxal xam ngeen ni ku mel nii ba noppi te bu yegsee ci ku gëm yàlla du ñeme yegsi da koy xuuxal di ko tiital jàpp na ni ko ku ñàkk fayda la ko ku amut ful la ci li muy def waaye ñemewulit moo tax imaam ju mag ñuy wax Wahb ibn Munabbih mu ne gis nga jinneeg seytaane yéen nit ñi yéen leen di ragal rek waaye ñoom dañ leen a ragal comme yéen ni ngeen leen ragalee dafa fekk mbir mi ab nappante la ku gën a jekku sa morom rek daal di war ca kawam kon seytaane moomu sunu borom sàkk na ko lu jiitu bara xay dañuy wax shaata yashiitu shaytan shaytaanan maanaam seytaan ci boppam ay jëf la yoo xam ne jëf yu bon la moo tax nit sax bu ko defee buñ nee te seytaana fulaan dañuy wax ni saara shaytaanan mooy dafa mujj léegi nekkub shaytaan te nit dina am shaytaane jinne tamit dina am shaytaane shaytaane nag bokk na ci capacité bi ko sunu borom defal te muy kéemaan mooy day daw ci sunu yaram comme ni deret di dawee ci sunu yaram yonent bi alayhi salaatu wasalaam comme ni mu ñëwee ci Buxaari ak Muslim benn bis dafa nekkoon ci jàkka def liatikaaf liatikaaf mooy fukki fan yi mujj ci weeru koor nga nekk ko ci jàkka bañ a génn di fa def say jaamu yàlla ba fukki ñu ñu ni weeru korite feeñ na yonent bi soxnaam safiya dikk fa ci guddi gi di ñibbi kon soxna yee sañ ñëw waaye yow doo dem sa kër tey yu bari yoon sañoon sa kër dañ la koy tere booy itikaaf bi safiya di ñibbi yonent bi génn di ko gunge tombeeg bi mu génnee ci buntu jàkka ji rek am ñaari xale yu góor ci saxaaba yi di romb ah bi ñu gestoo seen yonent bi ànd ak ab jigéen rek ñu baral seeni i jéego waaxu yonent bi ne eh ala rasulikuma taxaw leen xaar gaa yi daal di ñëw bi gaa yi yegsee yonent bi ne leen kii sama soxna la Safiya la tudd gaa yi dar seen gémmiñ ñi ko subhanallah yonent bi loo foog yow da nga yaakaar ñun dañuy ñaaw njort naan da nekk ak yeneen i jigéen mu ni déedéet du yéen laa wóoluwut waaye saytaane laa bañ ngeen dem seen biir kër mu ne mu ne leen ah waaw yéen ki yonent bi nekkaloon sànq kum doon te gis ngeen caay-caay yi nga xam ne ci njort ak foog ak defe ne lay juddoo foofu lay tàmbalee leen kii sama soxna la seytaane ca la waxee ni inda seytaane yajri fi ibni aadama majra dami seytaane day daw ci yaram comme ni deret di dawee xoolal koo xam ni mën naa dugg ci sa yaram di circuler comme ni deret di def jàpp na ni kooku ndimbalum suñu borom rek a fi nekk waaye lu ko neex rek mën na la koo defloo moo tax boo meree mu am doole boo ñëgee mu am doole boo xàddee mu am doole boo jaaxlee yooyu yëpp melokaani doof la ci doomu aadama saa bu amee rek da ngay gis ni yaram wi day néew doole te bu yaram bi néewee doole rek mu accélérer ay jëfam moo tax léeg-léeg boo seetloo ku farlu woon bis buy def njaaxum wala ayaasu billah njaaxum gu rëy rëy lay def ndax day fekk iblis da koo jépp ndax day jéem ay pexe ci moom du sotti mu toog di xaar bis boo amee xafla gu ndaw rek bu la songee rek bu soobee yàlla dana la def lu musiba ju rëy rëy bu la suñu borom dimbaliwut iblis euh, yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na fi mu ne magal na te loolu xel nangu na ko na xam ngeen moo ñaanoon yàlla na gudd fan bu mu dee ba àddina tukki anzirni ila yawmi yubaasuun Iblis dana woon yàlla may ma gudd fan ba àllaaxira sunu borom ni ko may naa la ko waaye foofu mbokk yi ci ngay xam ne gis nga ku al alku nga kenn mënatu lay ginti aadama tooñ na boroomam ndax daa lekk ci garab gi Iblis tooñ na boroomam ndax dañ ni ko su jootal mu bañ adama dellu ca cosaanam muy ban xam ni def na njaaxum mu dellu ca boroomam tuub sunu borom baal mu yaakaaru leen woon ni Iblis bu dellu woon ci boroomam tuub sunu borom du ko baal waaye ak rëy da ko jàpp moo tax yonent bi ne rëy kum nekk ci yow doo tàbbi àjjana rëy jàpp ko au lieu mu ñaan yàlla njéggal comme aadama ñaan na mu nangu moom na ñaan mu nangu moom mu ni nañ ko may fan wu gudd ba àddina tukki su ko defee ngir caay-caay gi mu bëgg def lépp mu mën a sotti yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ni fi ne dafa jël ak gàngu naayam teg ko ci kaw ndox moom iblis su xëyee day woo njaboot gi yabal leen ni leen dem leen ngeen yàqi xam nga iblis dafa am njaboot ah. Eh, sunu borom mi ngi koy wax ci alquran afa tattaxidunahu wa dhurriyatahu awliya moo tax da ngeen di jàppee seytaane ko njabootam ay péete bañ ko bañ jël sunu borom def ko péete kon moo ne am na njaboot seytaane jinne iblis dañuy lekk dañuy naan dañuy feebar dañuy dee te ñu am doole lañ waaye iblis moom baa dina tukki moom day continuer dund te it ñu mën a gudd fan lañ ak ñoom jinne ñu mën a gudd fan lañ ci ak njabootam ndax seytaane yépp ñooy continuer nekk ba àllaaxira duñ dee wala moom iblis kese la iblis rek la alquran saxal la ca des moom ay nit a ko wax rek waaye amul ndëslaay gu dëgër su ko defee benn waay day ñëw ni ko ah tey de def naa njaaxum gu rëy rëy mu ni ko lu xew mu ni diw sàngam mi doon baax baaxul naan day jéem a dem jàkka jaak ñoom seen tey de fexe naa ba yóbbu ko ci ah, ab xale bu jigéen coro fexe naa ba wutal ko coro tey iblis ni ko waa ah, baax na toogal fii benn waay ni ko tey def naa njaaxum li yonent boo ko nit la alayhi salaatu mu ni ko loo def mu ne diw sàngam ne tey fexe naa ba sàccloo ko mu jël alali jàmbur iblis ni ko ah baax na toogal fee beneen waaye ñëw ni ko yii man de tey fexe naa diw mu doon sell sellu tey de naa boole ko xale bu jigéen ba mu jaaloog moom ne ko waa baax na am na ñaari riwaaye nag benn bi dani kenn ki day ñëw ni ko yu tey def naa njaaxum gu mu ne ko lu mu ne ko fexe naa ba diw di ab jullit rey nit beneen riwaaye bi dani fexe naa ba teqale diggante nit ak nit baay ak doom jëkkër ak jabar xarit ak morom maanaam teqale rek xam ne seytaane ku te teqalikoo da ko bëgg lool kon teqalikoo ak rey ñaar yooyu bu ci am rek seytaane day jël waaja dëj ko ci dàngu naayam ga ni ko ant ant yow yaay jàmbaar ji li nga def tey loolu laa gën a bëgg kon gis nga rey nit ak teqale ay nit seytaane loolu la gën a bëgg moo tax gis nga tey ni mu baree lool ndax njaboot gi moom ñu ngi liggéey ñoom seytaane moom mbokk yi moo yàqaloon bàyyi aadam ba mu génn àjjana noonu bu mel nii xoola àjjana ni mu neexee kër goo xam ne boo fa xësee ba dugg dañ naan li nga yoroon lépp wàcc ko ca biti ndax li nga yore boo fa duggee ca mbalit ma nga ko jëmee kër goo xam ne ca fa nga bëgg fa ngay dëkk bâtiment yoo xam ne birigi oor lay doon birigi xaalis moket yoo xamante ni foo ca tëdd nooyaay ba day tax mën nga faa nelaw chaise yoo xamante ni da ngay toog ci yi muy wëndeeloo ak yow ah miir yoo xamante ni lañ ko lasoo gëtt lay doon maanaam parfum muy gilli ca miir doo lekk doo doo mar doo siburu doo sonn doo joxe dépense amut lenn luy naqari sa bakkan te it la nga bëgg na ko bëggee noonu lay ñëwee amul sax bëgg naa nangam ñu naan xaara ba suba déedéet wala kum fiha ma tashtahihi al anfus bi mujarradi an tashtahihi tajidhu maanaam da ngay xalaat ne nangam laa bëgg rek affaire bi yegg si ci saasa xutuufuha meññeen ma daaniya dafa jege lool fii a ajjana joo xam ne aaliya dafa kawe gis nga de yooyu yëpp aadama dugg fa Iblis añaanee ko ko fexe ba yàqal ko mu génn jàpp naa ni mbokk yi mag mu day ni bàyyi aadam di ab yonent di ki yàlla njëkk sàkk bind ko ca loxolu boppam la mu mel nam mel Iblis nax ko ba génne ko àjjana ginnaaw bu mu nekkee dogal suñu borom nag jàpp naa ni ku nekk war naa tiit kooku ay pexeem dogal suñu borom la nag dogal suñu borom la moo tax ba yonent yàlla bi alayhi salaam mu ni dafa dajeeg ah, Adama alayhi dane yàlla wan ma aadama sunu borom ni ko waa looy doy aadama mu ne ko wan ma ko rek ba ma gis ko yàlla joxoñ ko ni ko aadama nga ne Moussa dem ba ci aadama alayhi salaam ni ko yow yaay mu ne ko waaw mu ne ko yow la yàlla bind ci loxol boppam mu ne waaw mu ne ko yow lan nga doon ba di ñu génne àjjana xoolal bii ñu nekk yaa ñu ko teg fi ne joxam bi sonn nañ fi ne kenn lu ñu yow waxa waxa waxa wax ba yeggal aadama siggi ni ko yow yaay Moussa mu ne waaw yow la yàlla doon waxal mu ne waaw yow la yàlla bi ni tawraat ci loxoom jox la mu ni waaw mu ni ko waaw yow naka nga ma yeddee ci loo xam ni sunu borom bind na ko lu ma jiitu lu ma nangami junni at Moussa ni teg yonent yàlla mu ni fa xajja aadama Moussa aadama daal di yey Moussa foofu nag kuréel yi nga xam dañoo sànku am na ñoo xam dañuy wax ni nit ki daal amul benn responsable loo def yàllaa ko dogal sa yoon néew ci dañuy tegtaloo ci loolu lu tax ndax nee nañ aadama li mu yeyee Moussa dani ko naka nga may yeddee ci bàkkaar boo xam ne yàlla bindoon na ko kon daal nit ki sañ wax loolu déedéet su fekkoon nit ki sañ naa wax loolu lu tax aadama dem tuubi kon lu tax aadama dem tuubi kon aadama dafa tuubi yëg ni dëgg la yàllaa ko dogal waaye man am naa ci responsabilité parce que maa ko def comme maa ko def moo tax may tuub kon jàpp naa ne ñooña di wax loolu dañoo xamul dara waaye bu ñu xamoon duñ wax loolu suratul baqara suratul araf suratul hijr suratul isra taha saad borom bi nettali na ci aslëf ci la dox ci diggante baay aadama ak iblis bokk na ca yooya sunu borom ci suratul baqara dani fàttalikul ba ma waxee malaaka yi sujootal leen aadama malaaka yëpp rot sujoot ma xam ngeen sunu borom dafa wax jibril demal ci kaw suuf nga indil ma ci bëpp suuf yent yàlla beneen jibril ñëw dem ca ban ba dem ca beeñ ba dem ca jànj ga dem ca joor ga dem ca xurwa façon suuf yi ne ca kaw suuf yi bu xonq ak bu weex mu tib def ca bank yét ko suñu borom suñu borom daal di ci defar benn genre estati boo xam ni forme doomu aadama la yore yore ay nopp yore bakkan yore bopp ak bët ak ndigg ak tànk ak lépp ni doomu aadama yi mel waaye nag amul ruux affaire bi tëdd benn palaas iblis laanatullahi alayhi balaa laana di ci kawam léeg-léeg mu romb seen affaire bi tëdd benn place rek mu ngi xalaat naan waaw suñ borom lu mu namati fii xam naa namati na mbir de moom suñ borom waxu leen lu xew ba suñ borom toogee ba sopp suñu borom mu ne ah man damaa bëgg a sàkk benn mbindeef wàcce ko ci kaw suuf malaaka wax lañ wax ci ba comme ni ñuy suratu baqara waaye ba suñ borom defee ruux aadama jug taxaw nekk juróom benn fukki xasab maanaam nga natt fii ba muy juróom benn fukki yoon xam ngeen ni kooku kooku nem njoolee yàlla rek moo ko xam yent yàlla mais foofa nit ñi tàmbalee di gàtt di gàtt ba tey jii jëm àllaaxira nag bi aadama jógee alayhi salaam sunu borom daal di wax malaaka yi ne leen su jootal leen kii taxaw su joot nag yàlla rek lañ koy defal subhanahu wa taala waaye yàlla bu ne nañ ko defal kii dañ koy defal kooku su joot yent yàlla beneen su amoon kenn ku ñuy su jootal jigéen mooy su jootal jëkkëram ngir àq yim ko ameel waaye duñ su jootal kenn loolu moom defe naa lu leer la amul explication après malaaka yëpp rot su jóot sunu borom gis ni am na benn waay bu ni sëmm sëmm maaral taxaw moom su jootul ndeke mooy iblis suñu borom ne ko waaw iblis yow lan moo tax su jootoo te la commencé de làkki ay daadaa wax wax yi nga xam ne moom ngeen dégg sànq soo demee suuratul aaraaf sunu borom dañuy ñun de yàlla ñoo leen bind melal leen ni ngeen mel digal aadama malaaka yi nañ ko sujootal waaye malaaka yi sujoot ñoom ñëpp ba mu des iblis ndax iblis xam ngeen añaan moo ko jàpp ba tax keroog su jootul moom kat bu sunu borom ni ko waaw iblis maa manaaka allaa tasjud ah waa iblis lu tax su jootoo yaa comme gars yi mu ne ana xayrun minhu kii maa ko gën ndax biñ koy bind ci ban bu salte bi fi la ma fekk te man tàkk-tàkk sawara yi rafet yi lañ ma bind ndax xam ngeen ni seytaan ñu ngi ko bind ci tàkk-tàkk safara wal janna xalaqnaahu min qablu min naari samum naaru samum mooy bu tàkkee nga seen tàkk-tàkk bi jóg ca kaw diggante taal bi ak asamaan si la nga séen muy tàkk-tàkk lu xonq loola mooy naaru samuum ca lañ sàkk iblis mu ni man maa ko gën kon dafa xiyaas dafa natt moo tax euh, ibni sirin nee na jaamu jant ak jaamu weer ak jaamu lu suñu borom mi ngi tàmbalee ci nattat la yooyu soo demee ci suutul xijri kadalika suñu borom mu ni ñun yàlla day ba ñu sàkkee ba ñu waxee malaaka yi man de maa ngi sàkk mbindeef boo xam ne ci ban laa koy bindee su ma ko defee mu mel ni mu war a mel su paree na ngeen ko rot sujootal ko malaaka yépp sujoot ba mu des iblis suñu borom ni ko waaw iblis lan moo tax sujootoo qaala lam akun li asjuda li basharin xalaqtahu min salsal min xamain masnun gis nga iblis boo dégloo discours bi xam ne ku yaree diku la maanaam waxin wi wax ak sunu borom sax waxinu ko yaree diku la lan mu ne lam akun li asjuda li basharin man yàlla maa nekk naan dama lay sujootal ab mbindeef boo xam ni xalaqtahu min salsaal min xamay masnun yaa ngi bindee ci ban bu salte bi kooku du ma ko sujootal suratul isra sunu borom ni bañ waxee malaaka yi sujootal leen aadam ñoom ñëpp ñu sujoot iblis ni asjudu li man xalaqta tiina man maa fi taxaw naan damay sujootal ku ñu bindee ci ban boo demee ci taaha boo demee ci saat daanaka aay yooyu mooy yi ñu jàng sànq yëpp noonu la mel ah, ca la sunu borom nag daal di dégrader iblis allahu akbar muy jaam ko te yàlla bu ñu xamoon sunu borom wàcc ay garaatam sëmbar sëpp yërmande eh, eh, eh, mbugalam ci kawam dàq ko ci yërmandeem ni ko yow nag gis ni ki tey moom yàqule nga loo ma soona def yàqule kon ndekete gis nga nit mën naa jaamu yàlla jaamu yàlla yu bare bare bare ba nag wëlbati ku yàqaat moo tax sunu borom naan wala tubtulu amalakum bu leen yàq li ngeen jot a def ci ay jaamu yàlla sunu borom mu ne ko ihbit minha léegi kon wàccal fi fépp comme dañ laa yëkkati woon ca kaw ngir say daraja léegi wàccal fa maa yakunu laka an tatakabbara fiha fii kuy réyréel du fi nekk suñu borom mu ne ko innaka min as-saxirin bis ni ki tey yow ku torox ngay doon ku ñu doyadal ngay doon ah iblis de rabbi anzirni ila yawmi yow yàlla dama bëgg nga may ma mu gudd fan ba àllaaxira sunu borom mu ne ko innaka min almunzarin may naa la loolu mu giñ ci yàlla ni ko fa bi gis nga ni nga ma seetaanee bàyyi ma ba ma yàqu nii ba ma xal ko la aqudanna lakum siratakal mustaqim dinaa toog ni déjj ci digg yoon wi nit ñuy jaar pour baax dinaa leen dikkee nday joor di leen càmmoñ di leen kanam di leen gannaaw fenn foo ca nekk rek dinaa ci jéem ay pexe ngir doomu aadama yi dun la jaamu dun la wéetal gis nga fexe mu mu mën dana ko def pour jax-jaxal doomu aadama yi ba duñ jaamu suñu borom waaye nag boo seetloo borom xam-xam ne aljihaatu sittun côté yi juróom-benn la ndax kaw ak suuf boo ko boolee kanam ak ginnaaw muy ñeent bu ndeyjoor ak càmmoñ dikkee muy juróom-benn. Iblis nag ba muy wax dafa jëfandikoo kanam ak gannaaw jëfandikoo ndeyjoor ak càmmoñ waaye bàyyi na kaw ak suuf kon ndeke muccukaay yi mi ngi ci kaw ak ki suuf. ca kaw tàllalal sa loxo nga ñaan yàlla ndax ka fa nekk mooy sunu borom te dana musal ci ay pexeem waaye ki ci suuf sunu borom wasjud waqtarib loo gën a sujud iblis sujud ak nodd rek la bañ. kon muccukaay yi yooyu bokk na ci borom bi subhanahu wa taala mu dàq iblis ci suratul isra ni ko génnal fii yow ku torox nga ku alku nga ku yàqule nga su ko defee iblis nag daal di génn nag ci zumratul malaayika léegi war a xal imam ahmad génn na ci musnad ci hadis sabarata ibn al faake nee na seytaane yonent bi nee na seytaane dafa toog ci yoonu doomu aadama yi da ngaa jóge damay dem jihaad mu ne ah <laughs> demal jihaad boo demee jiyaat léegi ñu rey la bu ko defee sa gars yi nga doon àndal takk sa jabar ji jël sa doom yi ak sa alal ji demal rek nga xool su ko defee nga ne ah wax na dëgg de nga daal toog bañ a dem jihaat nga toog mu yàgg ngay damay sarxe mu ne ah ah bismillah sarxeel rek jamono be crise bi ni métti nga xam ni adduna bi yëpp Europe sax ñoom ñëpp yëg nañ ko boo fi sarxee sa alal ji mu jeex da ngay perte de nga ne xaaral ma fomm ko bu dee ko jullit mu joggi jàll bu dee ko gëm yàlla mu joggi jàll mu toogaat ba mu yàgg mun yonent yàlla bi mu ni damay gàddaay fii daal mënu ma fee dund sama diine xaaral ma dem beneen mu ni ah yow fii sa maam nekkoon sa maamaati maam commencé da indi ay sentiment te xam ngeen doomu aadama fi mu juddoo ay maam maam juddoo fa suuf la suy taq ci xolam loolu yàlla moo bindee noonu noonu yonent yàlla beneen nga joggi ko jàll mu ni gis nga ñett yi ko ko joggi jàll bu la saw fas wa ngeen toog nga deema tàbbal la àjjana boo jaaree ci géej gi lakk boo dee ma tàbbal la àjjana bu fekkee da ngaa lakk boo dee ma tàbbal bu fekkee da ngaa noonu dee simple nii ma tàbbal kon jàpp naa ni yooyu buntu la yoo xam ni mat naa fexe ba rëcc ca ka nga xamante ni mooy iblis borom bi subhanahu wa taala dàq iblis ni ko na ci sama yërmande iblis ñaan ko ma bàyyi ko fi ba addina bi tukki iblis daal di wax ni law zayinan lahum fi l ard mboolem luy mooy yàlla rek dinaa ko taaral ba mu rafet peinture ko ba nit ñi dañuy xeem pour gaaw dugg ca mu ni wala ughwiyannahum ajmain dinaa leen alak ñoom ñëpp suñu borom mu ni ko kàcc nga def ba mu des ñiy sellal ñiy sellal ñi nga xam ne ñoom lu ñuy def yàlla tax muy def ñooñu iblis du man ci moom ñoom dara sunu borom subhanahu wa taala mu ni képp ku la ak mbaboor gi nga àndal bu ñu faatoo ma tàbbal leen fa nga xamante ni moom mooy sawara iblis daal di mer nag xam nga nit bu fekkee dañ laa xañ dara te fekk la ko xañ a ngi taxaw mu ne araayta hada alladi karramta alay ah yàlla kii ngay jël di ko teg sama kanam ah la in axartani ila yawmi alqiyama la axtannikanna la axtannikanna durriyatahu illa qalila ah kii ngay jëlee yàlla di ko teg ci sama kanam di ma dàq ngir ngir kii soo ma fi bàyyee dinaa sànq njabootam gi yëpp sunu borom ne idhab fa man itabaaka minhum la fa inna jahannama jazaukum jazaa'un mawfura demal loo man defal kon ndeke iblis wàcc ki ko sunu borom wàcc ab nattu la moo ko neex moom moo xam la tax mu def ko sunu borom ni ko fexeel nag loo man moo xam ci jaalo moo xam ci alal moo xam ci buntu bu mën doon dana fa jaar ngir yàqal doomu aadama yi waaye nag borom bi subhanahu wa moom ña nga xamante ni ñooy sell dana leen dimbale dana leen musal moo tax yonente bi alayhi salaam mu ni suñu borom nee na man de bind naa sama jaam yi ñoom ñëpp ñu war a mën a baax waaye iblis moo ñëw yi leen yàqal leen kon loolu as lëf la woon ci lennet ci iblis ak ay mbiram la alla xutba yi di ñëw dees na wane iblis fa mu jaar ba ñëw ci kaw suuf ak pexe yi nga xamante ni moom la yàqalee baay aadama ak njabootam ak ni muy yàqalee nit ñi jamono ji ñu toll ñu ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala yàlla musal nu ci ay pexeem yal na yàlla fegal nu ay loram yal na yàlla musal nu ci mbooloo ma nga xamante ni ñoo koy topp yal yàlla aar ñu ci kanam ak gannaaw ak ndeyjoor ak càmmoñ ak ci kaw ci suuf ba benn lor boo xam mooy bàyyi koo ci moom du mën a yegg si ci ñun rabbana atina min ladunka rahma وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين